tudd ëttu alxuraan bu mag ëttu alxuraan bi nga xam ne Cheikh Ahmed Sakhir Lo mu baax ma nekkoon nitu yàlla nekkoon jàmbaar moo nekkoon liggéeykatu alxuraan ba yàlla faye ko lii nga xam ne tey jii moo tax ñu daje fi mbokk yi loolu li ci ab jullit war a dégge war ko cee jàngate mooy xam ne alxuraan téere la boo xam ne képp koo xam ne taxaw nga ko ci kaw suuf di ko dundal fexe ko dugal ci bopp jullit yi yaay ki gënal sunu borom ndax ki yàlla yónni di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne xayrukum man ta'allama alquran wa allamahu ki gën ci yéen mooy ki am dafa jàng alquran ba pare walbatiku di ko xamle kon Cheikh Ahmad Sakhir Lo ginnaaw bi mu mokkale alquran dafa tànn doon xamle alquran muy ne muy méccam muy ay yëngutoom ba yàlla sunu borom barkeel ko te xam ngeen ne alquran moomu dafa nekkoon xaritu sëriñ Touba Serigne Touba mi ngi wax ci téere bi mu tuddee Masalikul Jinaan fa man araada al xurba min mawlaahu fal yaqra il qur'ana la yansahu suñ tuwaa nee na képp ku bëgg a jege yàlla yoon wi mooy alquran nee na képp koo ne bëgg nga àgg ci sa borom dëgg-dëgg suñ tuwaa nee na nga sax ci alquran mu dellu soññi waat ci jullit yëpp daan ne adim tilawatan lisil kitab walaw salaasata mil ansab fi kulli yow mi doon hijran suñ tuwaa nee na nga sax ci alquran donte ñett isib la par bis bu ne na nga ko jéem a jàng yow jullit bi waaye bul xëy suba ba ngoon te jàngoo alxuraan te ku mel ne Cheikh Ahmad Sakhir taxawaay bu mag bi mu amoon loola de mooy firndeel ne pas-pasam mooy jullit yëpp alxuraan nekk ci ñoom jullit yëpp bis bu set ñuy jàng alxuraan bëgg ko sopp ko ci loolu la nekkoon ndax alxuraan mooy téere bi nga xam ne moo mën a leeral kaw suuf si jafe-jafe yi jullit yi am amuñu benn médicament bu ko mën a saafara bu dul alxuraan kon jullit bu ci ne waru gar la ci nga dellu ci alxuraan ndax alxuraan mooy saafara bi ndax borom bi daf ko wàcce ngir mu nekk saafaray xol te boo xoolee jamono bii adduna bi ni muy doxee problème dëgg sax am na ndax jullit yi am na lenn lu leen dugg loo xam ne alxuraan rek moo ko mën a dindi bu ko defee kon day warugar jullit bépp delluwaat ci alxuraan ndax euh, Serigne Touba Khadim Rasoul bokk na ci li ko ab jaam daa jox xolam sedd nga yëg ne jox nga ko dara muy alxuraan alxuraan rek nga ko daa jox mu yëg ne yow mii li nga ko jox nii yitteel na ko lool ba yow mi ko jox daf lay xoolaat saafoon teg yow bu baax kon loole mooy programme bi nga xam ne noonu la sun borom tànne jullit bi war koo doxe ci kaw suuf mooy bëgg alxuraan ndax yonent bi dafa wax ne kun aaliman aw mutaaliman aw muhiban aw mustamian wala takun lil xaamis fa taalika nekkal di borom xam-xam mbaa nga nekk di leen déglu mbaa nga sopp leen mbaa nga di leen liggéeyal waaye bul nekk juróomeel ba te mbokk yi nag juróomeel bi koo xam ne seytaane laxasu na ci bëggul a jàngale alxuraan bëggul a fekke fu ñu koy jàngalee ña koy jàngale du leen dimbali waaye da leen saboote loolu bare lu ngeen koy gis ci réseaux sociaux yi ñuy jaboliser sëriñ daara yi di jaboliser ñi nga xam ne alxuraan lañ doon jàng te ñooñu kat bu sun borom bi tabaraka wa taala man ñoo bay ñuy dund dund gu ànd ak leer jëmb yooyu moo tax jëmb yu saxaloon alxuraan kon warugar la ci bépp jullit nga dellu ci alxuraan teg sa tànk ci alxuraan fexe yar sa njaboot ci alxuraan ndax ab jullit la war a jiitu ci dënnam mooy alxuraan kon sa njaboot na nga fas yéene alxuraan jiitu ci ñoom alxuraan nag mbir la moo xam ne lu mu xas a fondement rek dana dëgër waaye lépp loo xam ne leneen fondement ko luut alxuraan daanu weesoogu ci kon jullit yi li seen warugar ñuy jël seen i njaboot di leen yar ci alxuraan di leen tarbiye ci alxuraan di leen ci tàggat ngir ñu nekk ay jullit àqan